mbokki Sénégal mbokki réew mi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 moo tax tey nag ñu daje fi tey la bésu tàmbali bi di ñaan yàlla suñu borom yàlla dimbali ñu ci te mottali ko ba li ñu bëgg yëpp suñu borom defal ñu ko ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam mais gannaaw loolu Cheikh Bamba xamoon nañ ni ni yaa ngi woon bitim réew nga ñëw bitim réew ngir jàppale say doomi réew gis nga ne xale yi ñu ngi dugg ci mbëkk mi jëm ci gaal yi mais lépp yaa ngi ko dëgmal te boo xoolee formation bi ni muy demee day laaj koom-koom tuuti euh, koom-koom boobu foo koy jële waa koom-koom boobu noonu euh, Cheikh bi euh, lu am solo la nga ma laaj parce que Cheikh Bamba tey bi mu jógee bitim réew ñëw ci propre moyen boobu ba léegi ci lay jóg ak daanu état nag maa ngi leen di sant comme partenaire technique parce que tey formation yi mën nañ ni ñoom convention bi ma signé ñoom moo tax techniquement ñoom ñoo ko subventionné pour xale yi mais ñu nit comme que dañu am yéene quatorze seize régions yi nekk Sénégal yëpp ñu wër pour xale yi ñoom ñëpp. ñu mën leen a jàppale te association lañu te amuñu doole te président Macky Sall ku ne xam na ni insertion jamono gi emploi des jeunes da ko ñor kon nag moom loolu comme que daf ko ñor te ñun ñu ngi xeex ci immigration clandestine ku mel ni man tey bitim réew moo fay jóge di ñëw sama gars yu bëri dañ ma mere parce que dañ ma ni yaa ngi ñëw Sénégal te loo fa fekk man leen nag man lu ma am Sénégal moom ko gënal kon nag bu ma ñëwee taxawal kuréel ànd ak gars yi di ci liggéey tey ñu bëgg a wër 14 régions yëpp tàmbali nañ ko gaa bëgg nañu moom it mu defal ñu ay subvention jàppale ñu ba fi ñu bëgg àgg ñu àgg fa comprendre nga beneen bi aussi tamit euh, mooy euh, ñi ngi ci daal euh, metti na franchement mais ñi ngi sant yàlla parce que saa bu ñu xëyee gis xale yi tey ñu leen di former pour pour ñu ñu am ñu am qualification war a am xëy dañ koy sant yàlla li ci des daal mooy ñi ngi góor góorgóorlu bëgg daal président gën ñu dooleel incha allah rabi waa. ginnaaw loolu xam nga ni xale yi ay sportif lañ ñoom ñëpp ci làmb ji la ñu nekk di di ci góorlu moo xam muy mbër mu ndaw moo xam muy mbër mu mag lu mel noonu fi mu toll nii euh, ministre bi yor wàllu sport bi moom ban taxawaay la ci am. waaw ministre bi yor wàllu sport bi maa ngi koy saluer di ko ma taar Ba. dëgg yàlla mi ngi góorgóorlu di bay waaram. mais ci sama côté man euh, kuréel bi ma taxawal muy FILS formation insertion des lutteurs Sénégal xaw nañ cee ñàkk gis suñu bopp. parce que tey euh, ku ne xam na ni xale yi dafa am ay ministères yu leen boole. tey da nga naan jeunesse muy Fatoumata Néné Tall moom moo ko géré Fatoumata Néné Tall ministre de la jeunesse moom wax dëgg yàlla mi ngi ciy jàpp parce que fépp fu ñu dem mi ngi defar ay t-shirt mi ngi ci def ay dooleem. tey ki nga xam ne mooy Dame Diop aussi comme ni ma la ko li ma lay sànq mu yor formation professionnelle li ma aussi def na ko parce que formation yi ci ay direction yi mu jox instruction la Alioune Sarr mi yor tourisme aussi mi ngi ciy def di bay waaram xam nga Moussa Ablaye Diop ministre de la culture. direction des arts saa bu ñuy def activité culturelle dinañu booleek moom mu jàpp ci mais Matar Ba bind nañ ko ay courrier ba sonn bind nañ ko ay courrier ba sonn te lii nii moom kenn waru ko ci woon jiitu tey lii nii nga xam ne moom la ñuy def moom moo ñu waroon recevoir bu yàgg toog ak ñun tey du xaalis buñ koy ñaan wala buñ koy laaj mais li nga xam ne moo ñor kilifa réew mi muy président Macky Sall muy l'insertion des jeunes ñu koy defar lutteurs yi te lu mosul am Sénégal am te bu ñu demee ba xale yi ñu leen di former ci sécurité garde corps rapproché ak yëpp tey dëgg la li muy def baax na mais daf ñu war a woo toog ak ñun waxtaan ak ñun accompagne ñu defal ñu ay subvention parce que ñun association boo xam ni franchement euh, ñi ngi góor góorgóorlu suñuy moyen bopp tey war na mën a ñëw dooleel ñu te ñu ngi am suñu ngor ak suñu jom di wër ci région yi fu nañu fay dem kon nag maa ngi koy lancer message franchement mi ngi liggéey la mu war a liggéey. mais ñun de ñun fils ñàkk nañ ci gis suñu bopp te ñun ci ñi mu waroon njëkk recevoir bu yàgg ci la bokk parce que bi mu toogee ci bureau CNG bu bees bi dafa dafa lancé message bi daa seen ne ko surtout l' insertion mais insertion boobu ñun ñoo ko yor kon nag daf ñu war woo waxtaan ak ñun lépp loo xam ne nii tey kilifa réew mi bëgg na ko muy Macky Sall muy wàllu insertion mu dugal loxoom ci association bi. kooku moom ñu ngi ko ci lancé message bu baax ni ko fils bind na plus de vingt cinq courrier déposé fa te boobu ba léegi tontu wuñu te bu ko liiree gëstu ko war na xam ne lu am solo la ñuy def ndax parce que xale yi di dugg ci gaal yi di mbëkk li ko waral dara ñàkk fu ñu jàppale rek lii Modou lii daam Diop def jox instruction ay direction am Fatoumata Néné Tall di ko def euh, euh, ay Diop wax ko direction des arts mu koy def ministre tourisme aussi ñoomit lu ñu am mu yónni chef de cabinet mag ay ay agent am ñu ñëw moomit it na fulaal association bi xam ne association bu am solo la message boobu moom lu ñuy nakaru lañ di ko ko lancé pour mu dégg ko ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi parce que bu ko defee benn askan bi lay jàppale ñaareel bi mooy li kilifaam bëgg muy président Macky Sall boobaa kon boobaa ci lay jàpp kon nag loolu noonu daal euh, Cheikh Djilou lu ñu nakari la di ko ko pour mu dégg ko. Euh, formation bi ñaata kii lay ñaata fan lay def. waaw formation bi 15 jours lay def c'est du 11 au 26 tey la commencé altiné le 11 le 26 incha allah a jeex bu jeexee. dinañ ci teg ay fanum néew incha allah war ñu def benn remise diplôme ci kàttan yàlla xam naa buñ ñu ko waree def yéen ñëpp di ngeen koy bu soobee yàlla pour ñëw ci incha allah bu soobee yàlla. la la amoon bee passé bi ñu defee remise diplôme yi ci saa si jël nañ ci ñett mbër ñu ñu ñu ñu embauché leen ñuy liggéey bi yoon est-ce que dinañ ci séentu ñu am lu mat fukki mbër wala wala fukk ñeent wala ñaar fukki mbër yëpp ñu jël leen. waaw loolu ñun yéene googu la ñu am yéene googu la ñu am kooku tamit dañ ciy lancé waat message di ko waat message tam secteur privé yi parce que ñoom ñoo mën a jàppale xale yi xam nga tey xale bi entraîné am doole ah mel ni mu mel a mel ñu def ci moom formation professionnelle état war na ko mën a jàppale parce que ñun suñu kuréel ñu li ñu tax a jóg mooy jàppale leen ba ñu am formation li ci des nag mooy secteur privé yi ak état ñoo war a jàppale xale yi recruter leen Soumaré defoon na lu rafet jël na ñett xale ba ñu ngi liggéey fp direction de l' emploi aussi moo Fall temps yële am na benn agence ASPP bu ko woo consulter ko mu woo ñu ba am nay xale yoo xam ne ñu ngi liggéey bu soobee yàlla yéene googu la ñu am mooy xale yi buñ leen defalee remise diplôme daañ leen gunge ba ñoom ñëpp incha allahu rabi ñu am fi ñu xëy incha allahu rabi ci kàttan yàlla jaajëf jaajëf. mbokki Sénégal mbokki réew mi.